gis-gis bi état du Sénégal am ci ndigalu chef de l'état pour mën a fexe ba institution de finance et de formation yi nga xamante ni ndaw ñi dañ koy soxla ñu mën ko indi ba mu gën a jege ndaw ñi loolu lan lay permettre pour que association yi ak jeunes yi mën a am accès à la bonne information mais aussi am accès à la formation et au financement ma bëggoon rekk xamal la ne Mbacké département de Mbacké mën nañu wax c'est la deuxième ville primatiale du Sénégal en termes de démographie en termes d'espace mais en termes d'économie kon lu ñu gën a yombal accès aux informations ndax on est dans un monde globalisé kon l'information ku la ko ëppale rek moo la gën a gaaw pour tendre vers le développement monsieur le directeur général am na ay place publique yu am na deux yu ñu war a commencer ci mois de décembre am na yeneen deux yu ñu bëgg a def ci deux mille vingt-deux chaque année bëgg nañu defar ñaar place publique yooyu ay ndaw ñoo fay daje am na deux point internet yu ñu jot a def Mbàkke benn bi mu nekk lycée bu Mbàkke benn bi entrée Touba bi mais bëggoon nañu place publique yooyu xam war a dem ba dix mu am point points wifi ndax njariñ li mooy actuellement élèves yu bari étudiants yu bari dañuy jànge ci seen machine dañuy soxla connexion te boo jàppalee jeunesse bi jàppalee waa dëkk bi jàppale commune bi ba place pilier am ay connexion wifi gratuit da nga jàppale beaucoup d' étudiants beaucoup d' aussi beaucoup de de service yoo xam ne danañ mën a liggéey à distance fi may daanele mooy gis nañ caméra de surveillance yi mais bëggoon naa nga dugal sa loxo ci insécurité ci vol de bétail pour que ADIE mën a créer plateforme boo xam ne dafa am numéro vert wala application bi nu ngeen ko mën a defee pour que berger yi ak ñi nga xam ne yor ak jur ne ci àll bi suñ demee ba gis leen jaaxal ñu mën a utiliser application bi pour alerte police wala gendarmerie pour que ñu mën leen a secourir maa ngi nuyu ñëpp. di remercier à travers monsieur le maire maire yi nekk Mbacké yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant le représentant du maire de Touba ñu ngi koy gërëm di ko sant di remercier maire département bi yëpp parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ seen présence mais aussi ñu ngi leen di gërëm ci li nga xamante ne mooy convention. ñi nga xamante ne signé nañu ko tey di tax muy am relation entre Sénégal service ak seeni ay mairie parce que nag dafa am loo xamante ne muy kayitu juddu di kayitu mariage wala kayitu état civil de manière général dafa nekk loo xamante ne askan wi dañ koy soxla saa su ne ak fépp foo xamante ne nekk nañu fa tey nag doomu Mbàkke mu nekk Mbàkke wala mu nekk fépp ci biir réew mi wala mu nekk bitim réew désormais ak convention yi ñu signé dina leen mën a permettre ñu mën a am accès seen acte d'état civil sans pour autant ñu war a mën a déplacer wu ci communes yi nga xamante ne foofu la ñu sokkee ko loolu nag technologie moom moo koy permettre te espace Sénégal service bi tey am na outil yëpp pour mën a vraiment jël en charge loolu nga xamante ne mooy li président di woowee moom mooy ñu rapprocher population bi ak administration bi grâce au numérique président Macky Sall mbëbëtam moom mooy tey fépp ci biir réew mi ñu mun fa yóbbu numérique ñu mën fa yóbbu digital loolu moo waral ñu tabax fii ci Mbacké espace Sénégal service boo xamante ne population département de Mbacké ñoom ñoo ko moom donc fii nag lu bari mun nañu ko fi def lépp loo xamante ne dafa nekk utum kayit ci biir administration bi tey boo ñëwee mun nga ko fi am espace Sénégal service bi administration bi yëpp la fi nekkal amul benn structure boo xamante ne tey du liggéey ak moom donc képp koo xamante ne nekk nga administration ci état Sénégal boo ñëwee liggéey ak donc espace Sénégal service bi ce service dinañu ko mën a délivrer ci espace bi jàppale population bi pour que procédure yooyu ñu mun leen a yombalal mais surtout nag ñu mun leen a indi ci département yi parce que seetlu nañ woon ne que population bi dañ doon def ay déplacement yu bari pour mën a jot ci yenn kayit yi léegi loolu président Macky Sall dindi na ko nit ñi mën nañu ñëw léegi seen département pour mën a bénéficier wu ci service yi nga xamante ne état bi daf koy joxe yëpp donc plateforme bi également am na muy la plateforme sénégal service point sn ak aussi la plateforme bi nga xam ne mu ngeen ko télécharger si seen ay portable mu tudd sénégal service ngeen mën fa gis lépp loo xamante ne dafa nekk démarche administrative nga xam ne documenté nañ ko foofu loolu yëpp nag pour yombalal vraiment accès service public population sénégalaise bi rawatina population wu Euh, espace bi nag abrité na également lu ñuy woowe pôle emploi bi nga xamante ne président Macky Sall moom moo ko teg pour répondre à la jeunesse sénégalaise ci li nga xamante ne mooy problématique u xëy loolu nag moo tax mu teg le pôle emploi jagleel daanaka quatre cent cinquante milliards yoo xamante ne jeunesse bi ak famille ñoom ñoo ko moom donc képp koo xamante ne bëgg nga bénéficier wu ci programme yooyu da ngay ñëw ci espace Sénégal service bu Mbacké nga mën a bindu mën a bénéficier wu ci programme gouvernement yooyu yëpp mais également ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu également ci maintenance su donc espace bi donc monsieur le maire loolu aussi ñu ngi la koy ñu ngi la ñu ngi la koy yóbbante ci say service pour que loolu également nga mun ñu ci jàppale parce que bëgg nañ vraiment espace bi ñu maintenir cadre bi pour mën di recevoir population bi dans de dans d'excellentes conditions loolu mooy souhait président Macky Sall te loolu moo tax mu defar donc tabax bu yànj bi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen déglu ak ci seen taxawaay jërë ngeen jëf